waaw déglu naa ko déglu naa ko waaw déglu naa ko déglu naa ko seetaan naa ko <laughs> kii dem safara ak kii dem àddina yàlla ko xam safara jaam la comme ñun àjjana jaam la comme ñun dañ leen bind bind nañ jaamu yàlla rek te yàlla képp rek tax après bu faatoo moom choisir ku ñu yóbbu kooku du waxul dëgg waxul dëgg kooku li mu reeree kees guddi sax fàtte na ko kees guddi lu ma reeree fàtte ko. benn feccukat ci sax bu dee safara bu kon réew mi dem safara kon xanaa dina bari dèjà li lay wax bëgg buzz bu mu tax na wax yéen yi bëgg buzz ay safara. ak àjjana mbiru suñu borom la bu ko tuumaal nit kii dem safara ak kii dem àjjana moom xamul dara kii dem safara ak dem àjjana moom xamul dara wax ban xadis lañ bind wala ban téere ne ñii buñ dewee safara lañ jëm ñii buñ dewee àjjana lañ jëm boobu wala xadis boobu wala fu ñu ko bind ñii buñ dewee àjjana lañ jëm ñii buñ dewee safara lañ jëm mais moom nee nañ dañuy woy woykat bu dee moom safara nga jëm kii day fecc fecckat bu bu dee safara la jëm waaw ñuy bëre tamit xam naa ni noonu la ko gisee. waaye xam nga ñun Sénégal lu ñu mën a teg ci deru doomu aadama ndax suñu noonu te doo xamal dara. jaamukatu yàlla yi si ñoon la ëppee si musiciens yi si fecckat yi si mbër yi. si ministres yi bu leen gis seen mbubu ministre wala seen mbubu président wala seen mbubu fecckat ñu bëgg leen gisee lu ngi def si social moom moom du ko def lu ñuy dimbali si jaamu yàlla yi ñoo di fay gis jumaa jox ñoom ñooy fay ndox mi wala ñooy fay courant bi wala lu fa yàq ñu koy defar wala amaana ñu tabax jumaa walla jàkka jël ñaata ñu di yóbbu màkka nga ñàkk dépense ñëw ñu jox la dépense fekk ñu tëdd hôpital ñu jël ko faj ko fekk ñu ku génnee këram ñu jox la ko location waaw loolu mën na ko def borom dem safara loolu mën na ko def borom dem safara ñaata yoon la artistes yi wala footballeur yi wala mbër làmb di rey ay nag ay xar di ko togg ba mu baax ko si jaamu yàlla yi. ak yi nga xamante ni koy def ñaata jaamu yàlla yoo xamante ni moo leen di jëndal xar tabaski. bàyyil moom sax loolu bu koy wax war naa rus mu kii moom bu paree man wóor na man guddi ko nelaw guddi ko nelaw parce que loolu tuuma bu rëy la. mën nañu wax tamit ñun suñu mbir àdduna fii suñu biir ñu wax lu neex mais àjjana ak safara demuñu suñu borom la.